الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبهم بشان إلى يوم الدين أيها الأحباب والمتابعة في إساءة خسيد أونلاين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت في برنامج من حاج الآبدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيد مود بيتام أيد الله ونصره mbokk auditeurs yi rajo xasidu online dellu seen beneen yoon seen émission bi ñuy tudde min xaajul abidin ilal janna te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ci daram ji ñu tuddé hey hiya ulumuddin istijo mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu mbokk mi nek ci technique bi moy señ Modou mbay Thiam ñoo biñ sante yalla julli ci mustafa ali salaam ñu ndokkeel leen yéen waa diaspora bi massawu leen luñ leen di ndokkeele mooy xam nañ ni nattu bi yàlla wàcce ci réew yi ngeen nekk ngeen toog nangu ko muñ ngir yàlla kon borom rabbisto yàlla dina leen ci bindal tuyaabay ku muñ nattu loo tax ñu leen ci ndokkeel luñ leen di massawu mooy jafe-jafe yi nga xam ni moom la àndal ci lu nëbbu ak ci lu feeñ ànd ak njàqare akuk jaaxle waaye suñu borom mi nga xam ni moom mooy waahidul qahaar ñu ko soob lay jëfandikoo ci jaamam ñu koy ñaan di ko nañ ko daan ñaane mu teggi natt bi te wuutalal ñu ko lépp mu di aw lépp di barke lépp di teranga wama salik alallahi bi asis innaka ala kulli shay'in qadir lolu weso ñu ngi deggmal shahru rajab euh, shahrul shahru ramadan al mubarak In baal afwan shahru ramadan al mubarak suñ ak mom ay fan yu néew mo ci dess lo tax nu bëgg waxtane wer wu teddu maggu di sahur ramadan al mubarak donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon waaye arab yi ñooy faral di léebu di wax ni li kulli makkaan maqaal sëñ tuuba mu ngay gàndeeru ci xasidaam ga nee wa man taraka takraar fala budda an yansa bi dañuy wax ni répétition te daa gusi la la waxtu wa répété rek dana ci am lu feeñ xëy na lu feeñul woon ca waxtaan wu jëkk wa bi xikmillahi tabaraka wa taala weer woowu di weeru ramadan di weeru ummatu sayidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalaam ñu ñaan sun borom weer woowu bu ñëwee yàlla bu mu fi fekk mbas mi wala bu ko fi fekkee buy dem bu mu ko fi bàyyi na ko yóbbaale ndax umma bi jaaxle umma bi am naqaru xol ci lislaam mi nga xam jamono bii daa mel dañ koo pinir ci benn barab umma bi jaaxle na ci loolu te amu ci mel ne pexe weer woowu nag xam ngeen ni mooy anniversaire alquran alkarim ci la yàlla wàcce woon téeréem bu tedd bu màgg bii nga xam moo yor solution wu addina moo yor solution wu àllaaxira ci la yàlla wàcce woon ci weer woowu kon weer woowu bu fekkonte ni am na date de bu fekkonte ni alquran am na date de naissance date de naissance am mooy saxru ramadan al mubarak ramadan li muy tekki mooy lakkaakonu bàkkaar yi ba mel ni dóom ndax yàlla bu ñëwee lakkal ñu suñuy bàkkaar ba yàlla baal nu li taxoon mu nattooñu virus corona ulamaaw yi muy ahlu xaqiqa muy saalixoona yi muy abdaal yi muy nujabaaw yi muy nuqabaaw yi ñoom ñëpp bu weer woowu masaana dëgmal dañuy jatu di ko tëggal ndëndum tala badru alayna ci seeni way ci seeni jéggulu seen borom ndax weeru préparation la ngir tuubal yàlla rabbi situ jàlla arifooni billaay yëpp bu weeru masaana dëgmal dañuy jatu ni soccet ñii di ko tatagal ci seeni abiyaat ñii di tatagal ci jàng alquran ñii di ko tatagal ci woor ñii di ko tatagal ci ñii di ko tatagal ci ilaaxiri ilaaxiri yi ku ci mel ni cheikhina wa qudwatina cheikh ahmadul bamba moo taxoon moom bu weeru koor masaana dëgmal mu dal di jóg tatagal ko xamal ko ni ko buum ngi yàlla yor suñu digganteeg moom muy alquran ci yow weer wii dikk ci yow mii la ko yàlla wàcce xam ngeen ni alquran dafa wàcc ñetti bi yoon wàccam gu njëkk nga bàyyi ko umul kitaab dal di wàcc law ul mahfuus muy wàcc gu njëkk loolu mi ngi am ci weeru ramadaan guddi laylatul xadri wàccu ñaarelam mu jóge lawul ul dal di ñëw baytil hissa muy asman si nu tim momit batay ci wéru koor ci guddi laylatu khadri wàccu ñettelam mu bayiko ko baytil xissa wàcc ci xolub sayyidil awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salaatu wasalaam ba tey guddi laylatu khadar ci wéru koor di bisub altine ca xaaru iran iqra bismi rabbika moo tax na aarifuna billaay yëpp fonk ko aarifuna bi aarifuna billaay yëpp warmaal ko cheikh ahmadou bamba nee na yaa xayra dayfi ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila xadadi lasilta dayfan kariman shairan abadan مكرما بقراءة آت والسدد مواثما عند رب لا شريك له وعند أهل التقى والإلم والرصد مدلج عارفون بالله يمدون وخ أك علماء وآملون منك يو نغن جي غن غن نيب ياتي غن تد يو دي سابو دي كي دنغنو اندي المك غن غا غو خمني سب سريكي دفري نخ يو بان سريكي غام موي القرآن القرآن موي سب سريكي saa boo ñëwee indil ñu sëri ca alquran mu ne ko kon nag maa ngi lay wax bienvenue welcome ahlan wa sahlan wa marhaban bik yaatal naa la ci sama ndam bi xol yaatal naa la ci sama ngëm sama iman yaatal naa la ci sama tawhid yaatal naa la ci sama digganteeg alquran alkarim ndax yow kat la sil te karima doa masa deñ mukk doon gan gu tedd ndax gan nga go xamni ni boy ñew ñëw bi gëna duun ci sërite yi nga indi moy alquran alkarim mu ne ko te setlu naa ni at mu nek nga ñew visiter ñu wat at mu ne nga ñew visiter ñu wat at mu ne nga ñew visiter ñu wat te sa boy ñew do tayi ci indaale bi ñi tuddé alquran alkarim mu ni ko waaye man nag as la man sëñ Tuubaa as gor laa soo xam ni ku ma lebal ker ma fay la guddi kon nag mukarraman bi xiraataaxaati xam nga lu ma lay ganalee naa mu xam naa ni yow doo lekk doo soxla woo ku la rayal ay xabban soxla woo ku la rayal gëlee ana loo soxla mooy yow li nga bëgg ku la koy berndeele mooy topp yàlla gu amut limite topp yàlla goo xam ni amut limite mu ni topp yàlla goo xam ni sadit lay doon maanaam topp yàlla goo xam ne dañ koy teg ci alal kitaab wa sunna ci njub au lieu ma lay topp yàlla ci lu wuuteeg sunna lu wuuteeg alal kitaab wa sunna déedéet man sëñ Tuubaa ni ma lay toppe ni may jaamo yalla ci yow sahru ramadan al mubarak moy al kitab wa sunna mu ne ko ndax yow da nga am dayo fa sa borom muaziman inda rabbi da nga am dayo fa sun borom sun borom da la jox xima fa mom da nga am xima ci kanamu yalla yow sahru ramadan al mubarak da nga am xima ci kanamu sun borom mi nga xamni la sharika la duma ko bokale muk muk muk. muk mu ne ko gis nga ni nga amee xiima ci kanamu yàlla way xam yàlla yëpp it nag noonu nga amee xiima ci seen kanam noonu nga amee dayoo ci seen kanam nit yàlla yëpp yow saxru ramadan al mubarak dangaa am dayoo ci kanamu nit yàlla yi nit yàlla yi dañ laa fonk warmal la ba boo dëgmalee dootuñu tëdd nelaw dootuñu lekk naan wa inda ahli tuqaa wal ilmi wa rasad xutwatina wa sayxina wa xabibina mu dul bamba radiallahu taala anhu noonu la tatagale saxu ramadan al mubarak bim fa du këram ngir gane si ko noonu la nit yàlla yëpp mel damaa gën a jege mu tudd ko te wala fi nee nañ gën a jege gën a yey waaye nit yàlla yëpp it noonu lañ daan tatagale saxu ramadan al mubarak ba ci saydil awalin wala axirin dinaa ci ñëw ci kanam incha allah li ma weer wu teddu màgg wi ñu dëgmal ci fan yu néew incha allah yàlla nañu fi bàyyi yàlla bàyyi nu fekke ko te màng ko gën gi màng ma ne alquran mi nga xam ni mooy teraange jullit ñi ci la wàccoon alquran moom nga xam ni muccug adduna gu àllaaxira ci la ko yàlla def ci weer woowu la wàccoon borom ni saxru ramadan allasi unsila fi il quran xuddan linnaas wa bayinaati min alxuda walfurqaan suratu baqara weeru koor ñun yàlla ci la ñu wàccee téereb dëgg téereb njub téereb texe téere boo xam ne lépp luy orientation buy tax doom aadama texe mi ngi ci biir téere bi bépp orientation buy tax doom aadama mucc addina mucc àllaaxira mi ngi ci biir téere boobu téere boobu moo ñëw di xamle lan mooy dëgg ak lan mooy neen ndax addina dafa baaxoo couleur neen ba koo gis yaakaar ni dëgg la mu ne nag téere boobu daa ñëw ngir ràññatle diggante dëgg ak neen dafa ñëw ràññatle diggante dëgg ak neen téere boobu ci la nit yàlla yi daan déyaaleeg suñ boroom bu masaana weeru kor masaana feeñ dañuy jël téere bi di ko nafar xam ngeen ne alquran mu wàccee ba alquran jeex ci diggante fukki at ak ñett jibril alayhi salaam weeru koor bi nga xam ne mooy mujjug dund yonent bi fekk daana ko jëkk def sax yeneen yeneen weeri koor weeru koor bu nekk jibril day ñëw di def ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam murajaa fil qur'anil karim jibril daan ñëw di répéter yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñaar ñu ànd di répéter alquran loo tax nit yàlla yi ñoom it buñ masaan di diyaaleeg yàlla dañuy dàkk weeru koor di diyaaleeg seen borom ci téere bu tedd bu màgg boobu di alquran alkarim gis nañ fu sëñ tuubaa di waxe naan naajaytu rabbiya li saxri ramadan saxril amaani wal muna wal faydaan ñun sëñ Tuuba di yaale sunu boroom tànn weeru koor di yaale moom ngën ji di yaale mi ndax weeru koor mooy weeru sécurité saxril amaan mooy weeru sécurité waaye wal muna mooy weeru teraanga mooy weeru barke mu ni wa faydaan ba tey weer woowu mooy weeru bëbbu bi maanaa rahmatun min allahi tabaraka wa taala ila abdihi maxfiratun min allahi tabaraka wa taala ila abdihi weer woowu mooy weer wi nga xam ne li ñu tuddee faydu rahman suñ borom danay koy bëbbal di ko jëme ci xoli jaamam ñi nga xam ni ñooy diyaaleeg moom فيض رحمان فيض رحmaan mooy xeeti xam-xam yi yàlla di ballal ci sa xol te doo ko jàng ci benn téere wa allamnaahu min ladunnaa ilman wala mooy faydu rahmaan mu ni moom sëñ Tuuba yàlla feeñalal na ko ci weer woowu li ñu tuddee faydu rahmaan gis nañ fu ñu waxe naan jaawartu laaha bi kitaabihi ilaa duxili jannatuhu man ci alquran laay déyaaleeg yàlla ba mujj ma dëkk ci rek dëkk ci rek dëkk ak sama borom ci alquran rek di déyaaleeg moom di raaja anteeg suñu borom alquranul karim na jibril daan muraajaxa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquranul karim may noonu laa doon muraajaxa alquranul karim sama digganteeg sama borom rabbi situ wa jalla jalaaluhu xalaxanaa wa mawlaana kon daañu gis ni sax ramadan al mubarak xam ngeen ni alquran farataal na ko sunna farataal ko ñu delloo ci addis yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne buniyal islam allah xamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqami salat wa itai zakat lum ca teg wa sawmu ramadan wa hajjul bayti man ista ilayhi sabila bi suñ borom ne bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne mu doon am néeg juróomi kenu ñoo ko yanu juróomi poto ñoo ko yanu ba néeg bi du daanu du mëbax juróomi poto yan la ñu ba ci jëkk mooy nga seede ni yàlla rek ay yàlla leneen lu dul yàlla la nga doon dong nga doon wala waaye yàlla rek ay yàlla keneen yàlla doon lenn lu doon waaye yàlla rek ay loolu nga seede ko dund gëm ko ci sa xol ni muhammad ibn abdullah jaamu yalla waaye ndawama moo ko yónni ci jaam ñi lu mu wax moo ko wax ma yantuq anil hawa in huwa illa wahyun yuha loolu it nga fas ko ba luñ ni yonent bi ko wax nga gëm ko te bañ wax naan walakin waaye c'est-à-dire ak ba ko yonent bi wax nañ xool jamono booba euh, sangam amagul woon waaye léegi bi appareil sàng amee bu sa yoon nekk ci loolu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa wa atax naa la bu wéree ni bi ko wax moom amutul dara loo war a xalaat loolu samih naa wa atax naa rek ah kay dégg nañ daañu topp rek wax yonent bi moom waaw la sant waaw la sant mu ne ñetteel bi mooy léegi ngay taxawal julli nag ngay taxawal julli jox julli xàqam ci waxtu wu ne ba ca dopp mooy nga génn asaka bu fekkee am nga lu ko mat maanaam lu mat misaab ay ca kon mën nañu wax ni ñeenteelu ponk bi mooy weeru koor aj màkk doog a ñëw juróomeel leen weeru koor weeru koor sun borom rabbi sa jàlla mi ko farataal ci bisub altine ci weeru saxbaan wii di waaj a jeex nii bisub altine ci saxbaan la yàlla farataal weeru koor ci yonent bi sallallahu alayhi aku xeetam ci bi nga xamante ni gàddaay gi am na ñaareelu at maanaam ñaareelu at ca gàddaay ga ndax bu leen fàtte ni sallallahu nekk na Madinatu Munawwara lu war a ci fukki at ak ñett yoo xam ni farata luñ koor ci moom jamono booba lislaam lu muy jàngale fu ñuy teg yàlla lislaam lu ñuy jàngale lu ñuy jàppe yàlla maanaam tawxid daal la lislaam doon jàngale boo gisee saar yu gàtt yëpp ëmb tawxid ba fees ko dell booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lool rek la doon jàngale alayhi salaatu wasalaam ndax booba ñu gën a bari ci doomu aadama yi mën nañu wax ni liñ doon xalaat ci tawxid bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale nga xam ni fekk na leen ñu nekk ci yu gën a bari yoo xam ni seen xol miin na ko ak seen xalaat te bu tawhid jiitu rek mën naa jur leneen naa koy faral di wax ni léeg-léegi nga gis ñu ni yonent bi sallallahu defoon na nangam te fekk booba ba muy def loola ma ngi ko defee màkka l'islam buy digle ak a tere di araamal ak a daganal booba ñëwagul maanaam benn aaya buy daganal mbaa muy araamal ñëwagul woon lu mel ni li wax naan sallallahu bëre woon na ak rukaana moomule loola màkk la woon te booba xam ngeen ni li ñuy tuddee charia muy loi booba amagul loi kañ la tàmbalee am mooy bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee madinatu munawara ba tala albadru alayna min saniyatil waada boobu nga xam ne moom la ko waa madinatu munawara doon tëggal yor tamaya booba eh, l'islam installé gul woon madina ba indi ay loi yoo xam ne nii mooy constitution l'islam waye bi l'islam sampo madina nak ba am fa 10 ans la dal di tëral ben constitution bo xamni li aram lépp ci la ko araamal la dagan lépp ci la ko daganal ñaar yoyu la nit ñi di jaawale motax lay legi ñi bëgg daganal li fekk lola ba muy am sallallahu alayhi wasallam sharia buy daganal buy aramal amagul won li amon moy tawhid rek la alquran don jangal ci jamono boba bi ñewé madina ci ñaarel at nonu madina ba am at ba atum ñaarel ma bisub altine ca wéru saxbaan ci la sun borom tabaraka wa taala nag dooga farataal koor ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem umma bi borom nee na ci alquran يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات من كان منكم مريضا أو على سفر فائدة من أيام أخرى برم نينا جلو مبيرنا جلد ني e yéen ñi gëm yàlla yëkkati leen seen loxo ñun ñëpp ñu ànd ko amantu billah mu ni man yàlla maa gàll ci seenu loos woor weeru koor ni ko gàlle ci loosu ñi leen fi jiitu woon te gëmoon ma donte sunu koor wuute naag seeni koor ñoom muy ni ko gàlle woon ca loosu ñooñu noonu laa ko gàlle ci seenu loos mu koor nag li tax ma def ko mu nekk benn exame wala exama dama bëgg a tànn ñi ma ragal te ci weeru koor laa koy tànne ñi nga xamee ne ñuy jàng na weer woo xam ne buñ ci àggee ñoom ñëpp dañuy daal di dem li ñuy tudde exama mu ne man weeru koor laa tànn ngir def exama julit ñi xam kan ci ñoom ñoma ragal deug deug ragal la alakum tatakhun ni ci lay xamee way ragal yalla ñi xam ngeen ni koor neexut ngistale man na am wax ñaara man am rek nga wor mba woro rek so ne wor na ta fek woro du tudd ngistal fen la tuddu fen lolu fen la tuddu leneen lu dul koor nak man nga caa ngistal man nga ca ngistal du ko xam kulul yalla rek du ko xam waaye weeru koor moom mënees cee ngistal moom sun borom ni koor a ngi noonu ayaaman maadu daat la ay fan la yoo xam ni boo koy bi lu mu bari bari du weesu ay fan yu ñuy compter rek ay aman daat mu ni képp koo xam ni yàlla dogal na nag ñuy def exement nga tawat tawat dab na la ci diggante bi man kaane minkum ko maridan bu fekkee da ngaa tawat ba def examen boobu di weeru koor wala aw ala safarin yaa ngi ci ab tukki boo xam ne mayu la ba nga mën koo def kon nag bu boobaa faidatun min ayamin oxar na nga konte fan yooyu bu weesoo nga retrapé na nga konte fan yooyu bu weesoo nga retrapé waat ko ni nga xamee ni nii noonu la gaa yi di retrapé li leen rawoon ci euh, enseignant yi wala ci enseignement bi wala ci enseignement bi da nga daal di rattrapé li nga xam ne moo la rawoon mooy faidatun min ayamin oxar konteel fan yooyu nga xam ni dangaa tawat wala nga ne ci tukki bu sari an nangu bu fan yooyu bu ñu wooree ba wari nga fay ko bu woore wooree wari nga fay ko loolu nag dana tax ma taxaw tuuti ci ñi nga xam ni virus corona bi tax nañu indi ay problème yi dul jeex di ko posé nit ñi sun borom li mu wax dafa leer ba mel ni midi fa man kaana minkum maridan la wax kum wóor ni dangaa feebar koo xam ne dañ laa quarantaine la wax ni dangaa feebar ñu ngay def ay prélèvement te dikkagul ku la wax ni danga feebar ba nga ni doo woor buñ la quarantaine suñ la quarantaine na nga fiy woor ndax benn docteur waxagula ni la dangaa feebar kon na nga tàmbali woor boo xamante nag dem nga ci kanamu docteur bi xamal ko ni ko man damay woor docteur bi la ne mënoo woor ndax lii ak lii ak lii moo tax mënulaa woor ayca bu fekkee docteur bi ragal yàlla tax mu wax la ko dara du ko ci fekk ëllëg ci kanamu yàlla da ngay te sa fan yooyu rek bu weesoo nga fay waaye wallahi bu fekkee ni docteur bi dara taxul mu wax la ko lu dul jéem a jaay intellectuel wala ànd ak parparloog bi yi wala del diine ah bis bu duggé bàmmeel xam bis bu duggé bàmmeel xam waye yow mom sa bu la docteur bi ne amuloo droit wor te docteur bi avant muy jël euh, fonction médecin médecine dafa wat su boba am nga droit légui nga bayyi fan yoyu bu wesso nga fay bu wesso nga fay waaye amuloo droit ni dañ quarantaine rek ah mën buñ ma euh, bu ñu ma indilee samay résultat danaa feebar ku la ko wax l'islam nanguwut loolu l'islam dalay wax ni même jigéen ji nga xam ni xam na ni la cinq bu nekk ci weer wu ne dana gis baax loolu moom jarabu na ko xam na ko am na ci expérience wóor na ko ni la cinq bu ne rek dana gis baax weeru koor dugg mu tàmbali woor di woor di woor ba mu wóor ko ni suba suba la war a gis baax amul droit ni comme suba laay gis baax du ma ci worante amul ci droit de déedéet day xëy um bu demee ba jant bi diggam ak jant bi so benn minute fi dox mu dal di gis baax ay ca suur booba koor googa amu ko yàqu na nu muy def fayaat beneen bis léegi lu ci sa xalaat mooy nangul ni dogalub yàlla suñ borom la ko teg loo ci man moo la bind moom la teg la loolu lo ci kaasa ka angan ak naan bu ma wooree ba digg ba ci gën yàgg yàgg damay dog ndax xam naa ni suba laay gis baax da nga gën a xam yàlla mi la wax wooral wooral rek boo wooree ba yàlla dogal nga gis baax moo ki nga xam ne naan man saa bu masaan àgg ci waxtu sàngam damay xëm kon nag ginnaaw suba la sama xëmte naa bàyyi du ma woor ah déet déet sañoo ko de sañoo ko de amoo ci droit da ngay woor boo wooree nag ba waxtu xëm wa ñëw nga xëm nag ay ca nga daal di dog léegi fay booba bis yow mi nga xam ne dañ laa quarantaine bu fekkente ni ah jël nañ sa deret ni ñi ngi seet ba xam tawat yaa ngi ci yow ci yow weeru koor yu feeñ dangaa war a woor ba keroog médecin bi lay assisté ni la amuloo droit woor su boobaa nag moom moo jël masulier bi yow da ngay compter say fan rek bu paasee nga daal di fay suñu borom junj na ko ci beneen aaya bi mu ne wa ala lasina yutiquunahu fidyatun taxaamu miskinin képp kenn ci yéen koo xam ni dafa tawat ba médecin xamal ko ni ko tawat ji nga ame mayatu la nga woor parce que tawat ji dootu wér tawat daayi man la dootu wér te mënoo ko booleeg woor kooku lu ko sari sant mooy bu weeru koor teroo bis bu nekk mu jox miskin lu ko suur koor daal di koy wàcc bis bu nekk rek mu jox miskin lu ko suur koor daal di koy wàcc taamu miskinin naka noonu ki màggat ba kumur nga xam ne amatul force ci woor dafa màggat ba kumur moom it noonu la moom it noonu la bis bu nekk rek na génne lu suur miskin hmm, mu jox ko ko mu dogoo ko bis bu nekk waaye boo déggee la ca suñu borom teg suñu borom dane fa man tatawaa xayran fa man tatawaa xayran ku def effort ba woor looloo gën fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la ku def effort ba woor looloo gën nag joxe fidya li muy baax baax ndax bu boobaa léegi joxe fidya mooy sa farata ndax yàlla la ko teg mu ne nag waaye gis nga loolu li muy baax baax fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la ñenn ñi bu fekkee ni jox nga lu ëpp miskin ab añam maanaam euh, taxaamu miskin boobu bu fekkee ni da koo jox lu ko ëpp ñu ni ba tey loolu aay bi li muy tekki mooy acca ku coobarewu ba jox miskin bi lu ko ëpp euh, ndogu ba tey baax na waaye nañ jellu ci beneen aaya bi nga xam ne moom amul sikki sàkka te mooy wa anta soomoo xayrun lakum in kuntum ta'lamuuna wallahi bu ngeen defoon effort ba woor bu fekkente ni koor gi ngay koor li ngay tawa tawat du jël sa du la du la indil benn loraange ci sa yaram nga def effort ba woor wala ci tukki bi nga nekk di tukki li muy métti métti nga def effort ba woor suñ borom nee na wa an tasuumu xayrun lakum in kuntum taxlamoon bu ngeen wooroon day da xam ni looloo gën bu ngeen wooroon da ngeen xam ni looloo gën lu tax moo di weeru koor wuren wii ci deux mille vingt mboolem bisi wéru koor ci 2020 bu la xësee raw dootoo ko amaat mukk mukk mukk mukk ba keroog ngay ñu ni suba la bis penc ndax beneen weeru koor ci beneen 2020 beneen même beneen 2020 bu amaatoo nit weeru koor woowu moom wéy na te dootu ñëw weneen yi ñëwaat rek weneen la rek loolu tax nag wa antu soomoo xayrun lakum in kuntum ta'lamun bisi weeru koor ni mu tedde bu la xësee ci mënoo koo dabuwaat yeneen bis yoo mën a woor yi lu bis yooya baax baax baax lum tedd tedd tedd mënta mel ni bisu weeru koor munu ne mel munu ne mel kon nag ñi nga xam ni jamono bu nekk dañuy lëmbaaje xeli julit ñi rek ak di leen jax jaxloo nañ xam ni kenn amul droit ni tawat jii mën naa am dana ma dal kon nag naa rapporté weeru koor ba ëllëg nangam amuloo ci droit da ngay woor ba keroog médecin bu ragal yàlla xamal la ni la boole tawat ji ak koor gi su boobaa ci ngay doog am droit dog koor moomule dafa am ay ponk boo demee ci ulamaaw yi surtout ñi nga xam ne ñoom la ñuy tudde ulamaaw ahlu borom ñeenti ngir yi muy Anbal muy Abu Anifa مالك misafi, شافعي رضي الله تعالى عنهم جميعا bu fekkee ni da ngaa jël anabila yi ak ñi nga xam ne ñooy anafiya ñoom dañ ñi koor benn rukkunu rek la am maanaam benn ponk dong la am te mooy imsaak anil muftirat ñoom nee nañ dong benn ponk boobu dong la koor am te mooy fexe ba penkatal fajar ba sowu jant nga jàpp fi sa bopp doo lekk doo naan loolu mooy ponk koor ci ñi nga xam ne ñooy anabila yi ak ñi nga xam ne ñooy euh, anbala ki mm, anafiya anabila yi ak anafiya ñoom loolu lañ wax mooy penkital jant ba penk sowu jant daal ayca nga bañ fee lekk dara jàpp sa bopp ci lépp luy tax dog koor gi dog loolu mooy benn ponk lañ wax ni mooy ponk koor ñoom ñu leen waaw ni nag yéene nag kon yéene nag ñu ni yéene du ponk yéene sart la bu dee saafi iya ak maliki ya ñoom dañoo gis ni ñaar yépp ponk la ñoom dañoo gis ni ñaar yépp ponk la ñoom dañoo gis ni imsaak ponk la niya ponk la ci koor sukkandikoo nañ ko nag ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax ni laa siyaama liman lam yu bayyit ziyaamu min liman lam yu bayyit siyaamu min a layli xadis boobu sayyidatuna xafsa soxna si yonent bi la sallallahu alayhi wa na ko indi na ko sallallahu alayhi wa sallam def ni koor mënta baax koor mënta wér lu dul ne woor ja fanaanoon a yéene jëkk penkatal fajar fanaanoon a yéene jënk jëkk penkatal fajar yéene nag ba tey borom xam-xam yi wuute nañ ci ni waaw ndax yéene jooju ah da ngay def bis bu nekk taxam xam ngeen ni sallallahu alayhi wa sallam <coughs> ngeen baal ma sallallahu alayhi wa sallam na addis ba innama ahmaalu binniyaati wa innama li kulli imrihin waa yàlla eh, maanaam Mm, acte yëpp yàlla nga ko teg ci yéene act yëpp yàlla nga ko teg ci yéene kon nag yéene mënta ñàkk léegi nag bu fekkente ni weeru koor wi dafa feeñ ñenn ñi ni ndax dangay def bis bu ne nga yeesal si yéene ji wala boog da ngay mbëmbëstal yéene ji rek mu màng weeru koor yëpp lu ci ni mën naa nekk waaye boo dee aji fàtte nag ku gaaw a fàtte kon nag bu fekkente ni ci ngir Malik man nga bu weer wi feeñee nga ni fas naa yéene mang weeru koor wi lillahi tabaraka wa taala ay jooju doy na sëkk nga mën a mang weer wi lu dul xanaa tawat dalaa gaar ci diggante bi bu fekkee ni jigéen la bu gisee baax ci diggante bi bu baax ba setee ba muy tàmbaliwaat di woor day répété waat yéene ji bu fekkente ni ba tey góor la waaye dafa tawat tawat ji tax mu dog koram ba tay muy worat day répété waat loolu mom sax goor ak jigen ko bok moy kep ko tawat ku ne ba dog sa koor bo xese tabal yene ji ca penkatal euh, wer wa legi yalla dogal ñu dem ba yag ngay wor di wor ba yag nga tawat ci digeenti bi bu tawat di wéré ba nga bëgg a wat koor gi su boba faaw da ngay bëssalat yene ji ngay bëssalat yene ji waaye bu dara dogal fi mom yenn yene ji man na mang wéru koor wi insha allah taala إن شاء الله تعالى سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم نينا قد جاءكم سحر رمضان سحر مبارك افترض الله عليكم زيامكم تفتأ فيه أبواب الجنة وتقلأ فيه أبواب الجعيم وتخل فيه سياتين وفيه ليلة غير من ألف شهر من أرم خيرها faxat urima aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam ñu rey na nee na ngir ngi mbindeef Mustafa alayhi salaam nee na ñi naa mu dikkal na leen ganesi na leen fenk na ci yéen ñëw na ci yéen ñu ni ko loolu mu doon mu ni saxru ramadaan mu ni saxru ramadaan maa ngi leen di xamal ni weer wu yàlla barke la ngi noonu sallallahu alayhi wasallam moko wax de wéru yalla barké la ngi nonu wéru yalla barké la ngi nonu muni wér wowu nak la yalla faratale ci yeen ngeen diko wor muni wéra ngi nonu wo xamni mom gën ni mi def sallallahu alayhi wasallam moy wax ci hadith abi urayra muni wéra ngi nonu wo xamni sa bu fenké taftahu fi abwab al yalla subhanahu wa ta'ala day yabal malaika yi ñu dem ubbi juróom ñetti bunti àjjana yépp muy fàndang juróom ñetti bunti àjjana yépp la sun borom di ubbi mu ni weer ak noonu woo xam ni saa bu fenkee wa sun borom ni rat bunti safara yépp ni weer wii kenn du ci dem sawara kenn du ci dem sawara daal di bunti safara yépp seytaane mi nga xam ne moo daanoon moo doonoon yàqaakon bi di dugal nit ci lu mu wërta dugg di def loo nit lu mu wërta def nee na weer woowu bu ñëwee wa taqallu fiihi sayaatiin mboolem seytaane ku njabootam ñëpp yàlla da leen di boole fotoŋ tënk jatan sànni baxarul xalsuum tënk jatan sànni leen baxarul xalsuum moo tax weeru koor saa boo ci defee aw jongalam bu ko jiñ saytaane de defe naa nga jiñ ko sa bakkan waaye saytaane moom loo ko ci wax tooñ ko ndax yàlla jatag na ko ba sànni ko fu kenn xamut yàlla jatag na ko ba sànni ko fu kenn xamut kon boo ci defee aw jongalong rek na la wóor ni sa bakkan la waaye doonatu saytaane moom génn ci saytaane nee na weer woowu guddee nga ca xam ni moo gën junniy weer wa fiihi laylatun xayrun min alfi guddeel nga ci goo xam ni moo gën junni bi weer laali wasalaam junni weer boo ko doon xayma daanaka mën nga wax ne mooy quatre vingt quelques années juróom ñett fukki at yu toftal tuuti ay weer genn guddi ga rek moo gën junni weer genn guddi rek ci biir weer woowu di weeru shahru ramadan al mu ne ak guddi ga nag ku yàlla defal sens ba nga xam guddi ga ba yëngu ca lu mat yëngu mu ne ah teraanga ngoog mu ne waaye nag koo xam ne nii yàlla xañ na ko yëngu ca guddi googee mu ne yàlla xañ na ko yiwu kenn xamul num toll guddi googu ku yàlla xañ nga yëngu ca ci luy maye ngërëmal yàlla nee na la wër ni yàlla xañ na la mbir mu réer yi man urima xayruha faxat urima yiwu guddi yow guddi xadri ku ko yàlla xañ nee na yàlla xañ na la yiwu réer réer yi yàlla bu nu ko sama borom xañ yàlla bu nu ko sama borom xañ guddi ga bu ñëwee yàlla nañ yàlla xiir ci ñu nekk ci lu may ngërëmam yàlla nañ yàlla xiir ci ñu nekk ci lu may ngërëmam incha kon sax ramadan al mubarak gi noonu ñu dëgmal ko muy weer wu tedd wu màgg li ma waxoon sànq ci saafiya ak malikiya nga xam ne ñoom koor ñaari ponku la am ci anabila ak anafiye ni ñoom ben ponku la am seigne touba dafa dafa fekk ci li nga xamni mom la maliki wax ak safihiya mom ci lool la and mom seigne touba seigne touba ni na anhu yaamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuxsani. niyatuna wa kafuna an muftirat. li waj i baaxin motximi bi tayibaat radiallahu taala anhu mu moom sëñ Tuubaa maa ngi wax li saafi wax ak li wax loolu laa wax mooy koor ñaari farata la am mu ñaari farata yooyu amul yokk amul wàññi laa siyaada wala naxasa laa siyaada wala naxasa ñaari koor yooyu mu ñaari farata yooyu amul yokk amul wàññi mu ñaari farata yooyu mooy ba ca jëkk an niya yéene yéene fas yéene woor weeru koor ni ma waxee woon ni sallallahu alayhi wa sallam nee na innama ahmalu binniyaati sina Omar moo ko nettali radiyallahu anhu mu ni ñaareelu farata bi mooy jàpp sa bopp ci lépp luy tax sa koor a dog lépp luy tax sa koor a dog moo di bul yaakaar ni naan dara wala lekk dara rek moy dokor koor ah bu dee ci sariya de waaye nit kooram dana yàqu ci lu dul mu naan dara ci lu dul mu lekk dara bu nuppi koor ga yàqu moo tax mu wa kaffuna an muftirat, muy loolu it boo koy def nu ngi ko def kan ngir kan mu ni la wëcc baaxin ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni mutximi moo la may kattanu nga mën a woor dog jot bu ko neexoon bu dog jotee doo am loo dogo waaye mu seet yi gën a teey mu may la nga mën caa dog yi gën a teey bokk na ci yi nga xam ni dana tax koor mën a ñoŋ mooy nga woor ci mboolem xeeti rasaayil yëpp xeeti caay-caay yi xeeti caay-caay yi nga xam ni bët dana ci tege ak xeeti caay-caay yi nga xam ni nopp dana ko dégg xeeti caay-caay yi loxo di làmb daj xeeti caay-caay yi tànk di dox jëm ca xeeti caay-caay yooyu yëpp ak yi làmmiñ di musulmaan waxaale wu ma ko xeeti caay-caay yëpp boo fexee ba mucc ci rek ay ca sa koor daal di ñoŋ moom la sëñ Tuubaa di juñ ji ca jinaan wala yu demee noonu maaxamut masaalik wala tasawudu subaan bam ne wa kullu man saama an rasail fa innahu yuftiru bil fadail ku fexe ba woorloo sa cër yëpp ci xeeti caay-caay yi xeet yu nettoo di ko yi loxo du làmb fu mu wërta làmb bët du xool lu mu wërta xool nopp du dégg lu mu wërta dégg tànk du dox jëm fu mu wërta jëm boo fexe ba cër yooyu nga wooral ko ci yooyu ay ca boole ko nag imsaak am muftiraat bu boobaa léegi da nga daal di am koor gu wér koor gu baax koor gu baax même bu dul woon weeru koor yooyu ma tudd yëpp day wowal xol di rey xolu boroom mboolem xeeti rasaayil yooyu ma tudd xool lu araama xool yàllamte na ci internet bi waaw dangaa YouTube gis fa vidéo di seetaan yu naccoo di ku yooyule mu ne ah su boobaa ngi bët ngi xool lu wërta xool de bul wax mukk ni image rek la de déedéet moog bu jëmm ji toogoon nii nga di ko xool ñooyam atte bul wax mukk ni image rek la moog bu jëmm ji toogoon nga jàkkaarloog moom ngeen di jonjoo ñooyam atte dañ tubaa nee na inna rasaila min adunub mawrisatun xasaawatul xulub mu ne ndax xeeti caay-caay yooyu xool loo wërta xool loo xam ne araam na nga xool ko wala loo xam ne araam na nga dégg ko Sëñ Tuubaa nee na yooyu di ko xool mbaa nga dégg di ko déglu day waral wowu xol xol bu dee kon nag boo ko doon seetaan ci vidéo mu nekk ci internet bi ak bu jëm ji teewoon nii ñoo bokk àtte rek araam na araam na kon nag boo bëggee sa koor ñoŋ mboolem xeet yi naccoo di ko yooyu yëpp même bu fekkee ne da ko daatan da ko daan seetaan jiitu koor rikkiwaay bu koor ñëwee bay boo nga wooral ko bañati koo seetaan ndax moo bu teewoon nga di ko xool rek ñoo bokk atte koor noonu mu amee ay farata noonu la amee ay sunna farata yi lim naa ko muy ñaar te saafiya wax ko ak malikiya boo demee ci sunna yi def nañ ko ñett moom la sëñ Tuubaa di junj ni masnuunuhu zalasatun inda labib sunnay koor ñett la ci ñi nga xam ne nii seen xam-xam mate na ko te mooy borom xel yu sell ya ba ci jëkk mooy taajiluna al futuri min baadi al qurub wasaani taqiru suhur laylan zali suha kaffu lisaan xawlan aw kama xaala radiallahu taala anhu mu ni sunnay koor mooy ba ci jëkk taajiluna al futur mooy teel a dog mu loa waaye nag loo teel teel a dog moo xam da sant sulla wala jaxata wala kebe mu ni loo teel teel a dog nag min ba xadil xuróob xaaral ba jant so waaye bu ñee teel a dog ba tax nga sant si la jant soogul nga gaaw dog ah koor day yàqu de day yàqu ba ci ñaareel mooy taxiru suhóor yéex a waaye lay lañ ci guddi nee na loo ñeme ñeme xiif ba mel ni ku sant mbay nee na ak lu mën a xew nag dëgg dëgg nag na nga xëdd ndax xëdd sunna la loo ñeme ñeme xiif nag na nga xëdd waaye nag bu fekkente ni rek noppi nga ci reer ba ay ca tëdd ba julli jot nga jóg julli ji doo xëdd déedéet daa bokk ci sunnay koor xëdd donte sax benn guuxu ndox la donte sax benn guuxu kafe la ci ñu ko am doon sax benn tàndarma la loolu sunna la sunna la mu ne waaye nag loo yeex yeex a xëddit nag ah na nga ca guddi ga nag na nga ca guddi waaye li ñuy wax karmat walla biddanti jant fenk na ko jaxate jaxate ba defee wan jant fenk ñu war a xëdd mu gis asamaan si leer nañ ñi mu ubal bunt bi ndax mu lëndëm ubal bunt bi ndax mu lëndëm mu ni soxna si ubal bunt bi ndax mu lëndëm suñ tubaa ne waxuma boobu de waaw waxuma boobu de xëdd moom nee na boo koy def nang ko def waxtu ba nga xamante ni nii lay lan ca guddi salisuhaa kafu lisaan téye saw làmmiñ ci jëpp wax joo xam ni amul njariñ laa faayida la jëpp wax joo xam ni laa faayida la amul njariñ ci saahir amul njariñ ci baatin jooja wax sëñ Tuubaa nee na téye ci saw làmmiñ téye ci saw waxati ndax daa bokk ci yi nga xam ni day yàq koor ni day yàq koor koor nag ni ma ko waxe woon képp ko xam ne weeru koor fekk la ci kaw suuf war nga ko woor amuloo wenn lay woo mën a lay lu dul xanaa tawat ju sari a nangu wala tukki bu sari a nangu lu loolu amuloo droit bañ koo woor loolu nag alquran da ko jinji faman saida minkumu sahra falyasumhu képp kenn ci yéen koo xam ni ma ngay pemti pemti yàlla may ko dundu ba weeru koor fenk fekk ko bakkan na ko woor na ko woor nettali woon naa addis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yow man xiyaam dafa jot nit ñi di dem àjjana ñi di jéggi siraat ñu gis benn waay malaaka yaa ko jàpp tiim ko ak yari daqaar di ko yari daqaar yi ñi di kuntaaba ñii di pes ñii di ko wat ak diri mu romb yonent bi taxaw sallallahu alaihi wasallam mu bëgg kalam bi ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir sallallahu alaihi wasallam xettali ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni malaaka yi way tin leen ma ci waji tin leen ma ci waji malaaka yi ni ko ah yow ki yalla yonni yaay fekk jam bo xamni ni koor da ko fekk ci kaw suuf mu lank bañ ko wor sun borom digal ñi indi ko mbugal nga di ko tinu yonent bi ne xalli nii xalli nii xalli nii na sori na sori na sori man kay ku yàlla denc moom weeru koor denc moom denc naa ci moom alayhi salaatu wasalaam sun borom nag ni kon fa man saida minkumu saara falyasumhu yépp ku yàlla wërsëgal ngay dund ba weeru koor fekk la ci kaw suuf nang ko woor bu fekkee da ngaa feebar ni ma ko waxe woon wa man kaana maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin oxor jooju ma wax suñu borom ni koo xam ne nag dangaa feebar wala nga nekk ci tukki bu sori a nangu man ngaa compter yooyu fan bu weesoo nga fay a lu tax suñu borom ni yuridu laahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra man yàlla wax dëgg yàlla nag indi indiwu ma leen fi ngir di leen wutal lu leen metti wala lu leen naqari wala lu leen tiis wala ma di leen ko teg déedéet man yàlla damaa bëgg lu jàppandi ci yéen rek waaye nag wax dëgg yàlla am naa yërmande ju toll ni du ma leen teg fitna mukk mukk mukk mukk

bu aw yiw rek ak bëgg tuyaaba danga boole weer woor weeru koor ak di infaax sa alal mooy di dépasse alal ci yoonu yàlla waaye lépp bëgg tuyaaba rek a tax danga woor weeru koor ànd ak di dimbale ña nga tane rawatina sun jamono bi xam ngeen ni naka jekk dimbalante ci weer yépp la dagan ci weer yépp la baax ci weer yépp la tuyaaba waaye rawatina nag saxru ramadan al mubarak ndax moom dari loo ci def yàlla da koy multiplier nga xam ne du am fu mu yam li nga xamee ne businessman yi fépp foo xam ne yaakaar nañ ni fa la rép ku gën a baree mooy tonawu mooy bénéfice foofa la ñuy daw wutali weeru koor mboolem xeeti tijaara yépp mboolem xeeti commerce yépp weeru koor moo ci gën a duun gën cee barkeel gën cee multiplier wu sa bénéfice moo tax sallallahu alayhi wa sallam nag ni ku ko woor te fekk nga gëm yàlla ànd ak nag di fàggu tuyaabu foo toll xufira la maa taqaddama min danbi yàlla dalay faral sa bàkkaar yu jëkk yëpp yëpp yëpp ba dootoo desee dara dara dara mel ni gone guy doog a judd biig gone guy doog a judd mu ñàkke bàkkaar noonu ngay ñàkke bàkkaar kon nag weeru taawunu alal birri wa taqwa la mooy weeru dimbalante ngir yàlla a rawatina suñ jamono bii nga xam ni crise totale alkaarisatul am li arab yi tudde alkaarisatul am crise kon weeru dimbalante la weeru dimbalante la weer la woo xam ni saa bu ñëwee ci la yàlla di examiner doom aadama yi wala julit ñi wala nablawannakum ataa na'lamul mujahidina minkum wa sabirin suratu aqaaf danaa leen nattu ngir xool ba xam ñan ci yéen ñoo amee dignité def ndigali yàlla yi bàyyi ay tereem ñoo amee dignité topp ndigali yàlla bàyyi ay tereem ñoo am dignité topp ndigal yonant bàyyi ay tereem ndax fii ñu toll ci jamono kat doomu aadama yi mën nañu wax ni ñi nga xam ne ñooy tubaab yi ñuul yi complexe nañ leen ba rus nañoo am di ñi tey jëfe ndigalal yàlla bàyyi tereem dañ cay nekk rek te boo waxee ñu ne yàlla ku bari yërmande la yenn yi ndeysaan ñu di ko jëllale ngeen jàngi masaalikul jinaan am la lu sëñ Tuubaa di tudde jikko joo xam ne nii tabiya ci borom yoo jikko mooy dem maanaam kersa laa bëgg wax kersa go xamni dafa nek li ñuy tuddé tabiya wala nga ni tabiya ci borom tabiya la ci borom tabaiya la ci borom jikko jo xamni ni tabiya la moy ndax ki manam kersa kersa go xamni ni tabiya la moy dafa na ni dimb rek mang koy jàngale ci masalim ci majalis bi sallallahu alayhi wasallam da daax ci hadis ba ni al aya la yati ila bi khair kersa mënta indi dara lul aw yiw rek kersa mom foko fekkal borom aw yiw kep kep kep la mëna indi borom aw yiw rek la mëna jural borom loola taxon mu masa romb ben way mu yarangal ben sëram wala ben fireeram an ko yow diw da nga ñak fulla sa kersa gi da bari sa kersa gi ëpp na wañul sa kersa gu ëpp gi sallallahu alayhi wasallam ni ko daxku bàyyi al ayat la yati ila bi khairi kersa du indi lu aw yiw bal jàmbur borom xam-xam nak dañoo sété kersa go gan la kersa gi nga xam ni tabi la googu kersa mom baxut moy lan moy kersa go xam ni da lay yobbe moy yalla am kersa bu mu yobbe la moy yalla googu kersa baxut joxe naa ko misal da nga tok jigen julu sa mahram ñew waxu ñu ni la jabb loxo nga ni ah rus naa ko bañ a jox loxo ndax bu ma ko joxul loxo mën naa rus mën naa am kersa si man ko koo rusloo ah bëggoo koo rusloo nag bay far bay mooy yàlla mi la bind te moom la moom ko bay mooy yàlla mi la bind te moom la moom ko ndax bëggoo koo rusloo kersa googu mooy kersa gu xaram mooy gu bon gi nga xam ne ni safara la qadar la wala saman mooy yow gis nga nit di def ak mooy yàlla nga ah waaye nag mooy sama wasila mooy sama sëriñ def loo na mag may yàlla gii xam naa ne lii moom may yàlla la waaye nag rus naa koo def ndax sëñ bee ma ko def loo sëñ tubaa ni jikko ju bona ngoog jikko ju bona ngoog waxoon naa ko ci waxtaan ye weesu ki nga xam ni mooy abdallah ki nga xam ni mooy maliku <coughs> ngeen baal gis ngeen ko ñu wan ñu photo am muy jox loxo jigéen gis ko ci image yi lol dara jëlu ko ci ab julit ci benn jabaru presidentu sun borom nak ni wala nat la wonnakum ata na'lamul mujahidin minkum wasabirin dana len nattu ba xam kan ci yeen mo am dignité bay bañ la l'islam bañ bëgg lam bëgg nango muñ ak bépp conséquence bu ci mën bayiko conséquence bu mën bayiko ci lolu moy da nga bañ li nga wara bañ mas naa ko gis bu yag yag ci jigen jigen jigen jooju ni ma nawé moy boba président la république bu sénégal monsieur abdoulaye wad mo don def tourner di jox loxo jigen ni ba agsi ci mom ni ko jabb loxo ndaw so dal di koy seli def ko ni ñaari loxo yi ma ko waw kumba waw kumba yal na fi yag te wir waw kumba yal na fi yag te wir ni la def waaye abdoulaye wad xamna ñun li ko diine sant xam na ni kii lim def diine ko ko sant donte ñoom defuñu li leen diine sant moo tax amu ca benn muskila waaye nee na même bu fekkonte ni loolu boo ko defee mu kutale seer sax na ko def ataa mu mujaahidiina minkum wa saabiriin donte da lay kute seer muy def ko rek hmm? am na ay euh, jigéen ñoo xam ni ñi ngi ci ay fonction ñi ngi ci ay fonction bu seen kilifa ñëwoon jox leen loxo ñu bank seeni loxo bu suba ñu dàq leen waaye ndokk nañ la dàq nañ la dàq bu la sa directeur joxee loxo lankal na la dàq ba xam sëñ tuba nee na lu waaye bàyyi ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën te loolu man xam naa ci lu wër de man man Mustafa mbay Sam xam naa ni waxi sëñ tuba jooju lu wér la lu waay bàyyi ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën wallahi wa rabbul kaaba <laughs> ñu noddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu amali ibnu aadama la ila sawmun fa innahu lii waa naajus bi loolu hadisul qudsi la hadisul qudsi sadana muhammad rasulullah hadisul qudsi mooy wax joo xam ni sun borom ko wax waaye da koo jaarale ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa xam nga alquran moom direct la du indirect hadisul qudsi nag indirect la mooy waxi suñu borom la waaye ci làmmiñu yonent sallallahu alayhi wa sallam la ko jaarale hadisul kursi boobu moo ni suñu yonent bi sallallahu alayhi wa suñu borom nee man yàlla maa moom weeru koor ah moom moom weneen weer wudul koorit bi moom moom weneen weer wudul koorit bi kon lu tax mu jagleel weeru koor rek tax siisan ni ko maala moom ni ko maala moom sayyidina muhammadun rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lu tax mu jagleel ko ni ko maala moom mooy xejj gi weeru koor xejj ak daraja ji mu am yàlla ni weeru koor maa ko moom way woor ñi bu ëllëgee yow mal xiyaam du ma yebal kenn mu di leen fay man yàlla maa leen di fayal sama bopp mi amee mi amee len di mbindee sallallahu alayhi wa sallam nee na asiyaamu junnatun من النار كجنة أحدكم من القتال ينا ويرو كور défense la ci safara aji woor ji bu yowmal xiyaame koor day taxaw di ko défendre diggam ak safara muy ni nga xamee ni mbubum koŋ aji xare ji sol mbubum koŋ nekk ci xare bi buñ ko dóoree jaasi ni ko mbubum koŋ mi di défendre le jaasi ba du dal ci yaramam xeej yi di ko mu koy défendre xeej yi ba du ko dal ci yaramam mu ni weeru koor non lay defandale jëm ji ëlëk yowmal xiyam ba safara du ko lak ba safara du ko lakk motax mu wax ci benen hadith mom sallallahu alayhi wasallam ni asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abdi yawm al qiyamah neena wéru koor ak al qur'an ñom ñaar bu yowmal al kenn ku nekk sun borom da koy may kat mu nekk jëm di wër bis penc ba di ram ñi nga xamni ni ñom ñoo daan wor wéru koor al qur'an di ram ñi nga xamni ñoko daan jang ngir yalla hikmatu cheikh ahmadou bamba ci hikma mi nga xamni dana koy faral di wax neena mom seigne touba neena bo demé ci sahur ramadan bo konté ay arafam neena jurum ñetti araf la lay jox mom sahur ramadan Muni ni te àjjana juróom-ñetti buntu la muni ni képp koo xam ne nii yaa koor bu yowmal khiyamé sun borom ubbil la juróom-ñetti bunti aljana ya bu la ca neex jaar bu la ca neex jaar mu ni alquran boo ko seetloo moom it juróom-ñaari araf la mu ni képp koo xam ne nii yaa ngi jàng alquran rawatina ci weeru koor bu yowmal xiyaamee alquran moomu ci la yàlla di sukkandiku ci juróom-ñaari arafam yi tëjal la juróom-ñaari buntu safara safara doo ko gis safara doo gis kon loolu dëppoon ak addis yonentu sallallahu alayhi wa sallam im ne asiyaamu wal qur'an yasfaani lil abdi yawma al qiyaama sallallahu alayhi wa sallam nee na ar ramadan ila ramadan mukaffaraati lima baynahunna in ijtanabat al kabaira aw kama xaala alayhi salatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam dani weeru koor ba weeru koor maanaam bay na saxray ni diggante ñaari weer yi sallallahu alayhi wa sallam nee na aji woor ji weeru koor ba weeru koor way ñëwaat yàlla da koy bombardeel bàkkaar yi fi ne ci diggante bi yëpp mu ni ci kaw nag ci kaw nag muy moytandiku ponkali bildini bàkkaar ya ponkali bàkkaar ya danga koy moytandiku yàlla door laa faral bàkkaar yu ndaw yooyu le ponkali bàkkaar ya ah ponkali bàkkaar yee nag yonent bi limoon na sax atul moo bi xaat moo bi xaat ponkali bàkkaar yi ponkali bàkkaar yi yowmal xiyaam suñu borom di fay way woor ñi du ko calculer du ko calculer xam nga mboolem xeeti jëf yi ci des jëf ju nekk bu ko yàlla di fay da koy natt da koy peese wa nadaul ni euh, ko su alquran waxe wana daw mawasina al qist yawm al qiyamati li yawm al qiyamati sun borom neena bu yawm al qiyamé damay tek ay balage yu sustu yo xamné ci lañuy péssé jëf yi wana daw mawasina qist li yawm al qiyamati ñu nak bam dess jëfi koor jëfi koor mom yawm al qiyam yalla du ko péssé al qur'an neena innama yuwaffa sabiruna ajruhum bi khayri hisab man yalla bu may fay bu kérogé duma calculer duma nat damay tibbi di soti rek di soti rek di soti rek ñi nga xamni ni dañuy deglu waxtaan yi te am ay emploi yàgg na maa wax ni bokk na ci li tax yàlla mbaa yàlla nit musal ko ci safara jégal koy bàkkaaram mooy nga yërëm say emploi te yàlla tax waaye da caa rawati nag weeru koor ci ba xam abi urayra moo ko mu ni sallallahu alayhi wa nee na wa man xafafa an mamlukihi fiihi xafara llahu lah waxtiqahu min an naar aw kama xaala nee na sallallahu alayhi wa sallam nee yàlla dogal na bu weeru koor teroo nga dawal compréhension sa digganteeg say emploi sa kemtulay kattan ci yërëm leen ci wayafal leen liggéey ba bañ mën ko boole koor nee ñu yonent bi sallallahu nee na ku ko def yàlla dana la jéggal say bàkkaar du ca yam dalay goreel ci safara ci boppam ñu la mbaa yàlla naa la goreel naa la ci safara nee ñu cheikh mahamadul fadal almbekki ibnu sayxina wa xudwatina cheikh ahmadul bamba radiallahu taala anhuma jamian weeru koor masaana teru day woo dongoy tërbiye yi ne ku a boole koor ak tooli fallu na nga boole koor ak tooli fallu koo xam ni nag mënoo boole koor ak tooli fallu na nga bàyyi tooli fallu te dem woor moo tax sëñ Tuuba ak njabootam gi ku leen di tuumaal lu dul tawxiid ku leen di tuumaal lu dul topp yàlla tooñ nga leen sëñ Tuuba ak njabootam gi ku leen di tuumaal lu dul ragal yàlla ak bëgg yàlla ak topp yàlla ak teg seen tànk ci alkitaab tooñ nga wallahi ak ko man a doon tooñ nga leen xoolal ma lii rek xoolal ma lii rek ku mën a boole weeru koor ak tooli fallu booleel weeru koor ak tooli fallu am ñaari tuyaaba waaye ku mënta boole koor ak tooli fallu bàyyil tooli fallu te dem ci koor ndax bee moo gën a farataw déggal ma lii rek déggal ma lii rek radiyallahu taala a wa naf'anu bi doomihi wa barakaati wa fuyoodaatihi Cheikh Moudou Fadal mhm. am na góor gu ñuy wax Seydina Diop bokk na ci ñi ma doon jàngal xam-xam nee na radiyallahu anhu génn àddina léegi yàlla na ko yàlla yërëm da daan wax musaana toog ci majaalis mu ni bay baxaw tuddul bay baxaw ñu ne ko nu mu tudd mu ne bay baxam dana baax wala déet la tudd mu ne bay baxam dana baax nag boo ko fi to boo toppee boo ko toppee bàyyi fi lim wóor la ni moom dina baax mooy weeru koor weeru koor moom wóor la ni dana baax mu ne nga bàyyi ko fa nag topp lee nga xam ne moom bay baxam dana baax wala du baax la mu ne dara jëru ko mu ne bay baxaw tuddul bay baxaw de nee na bay baxam dina baax wala déet la yal na ko yàlla yokk yërmande mhm. bay baxaw mu ñu tuddul bay baxaw de neena bay baxam dana baax wala déet la bay sidina djub mo daan wax lolu rahimahullah moo tax suñ borom ni inna ma yufa saabiroon ajrun bi xëy isaab weru koor mom sikki sàkk nekkul ci ni dana baax ndax mom bu fekke ni wor nga ko rek ay ca ngistal munu ta tabbi te yàlla neena buma koy fay duma limité mu koy fay duma limité loolu yonent bi wax na ku ci gërë ku ci wayefal say emploi yàlla goreel la ci safara sun borom daa wax ci alquran ni yuridu llahu an yuxafafa anhum ankum yuridu llahu an yuxafafa ankum wa xuliqa al daifa sun borom nee na man yàlla dama leen a yërëm ba wayefal ci yéen ba wayefal ci yéen ah ginnaaw dañoo bëgg yàlla yërëm ni sallallahu alayhi wa lu waxoon ci addis ba irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama yërëm leen ñi ngeen tane yàlla yërëm leen suñ borom ni yuridullahu an yuqafa ankum xuliqal insaan daifa man yàlla yéen ñii samay jaam sama objectif ci yéen sama ëdëf ci yéen mooy damaa bëgg fu ma toll rek di leen teg lu ngeen attan fu ngeen fu ma toll di leen teglu ngeen attan muy ndax man yàlla xam naa ni maa bind nit xam naa ni maa ngi ko bind ci néew doole xuliqal insaan daifa man yàlla maa bind nit te ci ñëw doole laa ko bind ginnaaw xam naa ne ki ma bind muy nit amul kàttan kon nag du ma ko teg lu mu attunut moo tax alxuraan ni laa yukallifu laahu nafsan ila wusaha man yàlla duma teg bakkan lu mu ënut lu ma seet ba teg la ko rek man nga ko moom kay nangoo bañ nangoo fa rek waaye lu ma seet ba teg la ko attan nga ko de attan nga ko kon bu yàlla dogalee xam naa xëy na dimanche bële di ñëw danañu fekk ñu dugg ci biir weer wi biir koor gi incha allah yàlla nañ ko yàlla fekkee loo bu fekkee ne am naa ci fursa bu ma mën a yeggalee waxtaan wi ci koor incha allah ma def la signe rek àggale ko bu fekkee nag aw ma jot gi ah xam ngeen ni weeru koor moom daanaka ci laa daan noppalu ci rajo bi waaye ci rajo bi la de waaye taxul ma noppalu ci yeneen yi ci des naa fi lay koor gaa ngi ñëw fii ci daari Ihya din at mu nekk dañ fi naafila al alquran bi ak donga yi eh, ci eh, néegub yàlla bi ñu fi liggéey nii incha allah ñoo ngi ci liggéey bi xanaa di waxaat jullit ñëpp rek ni leen ah fi ñu toll ni moom kenn sëñ te wax kenn dara waaye eh, bëgg nañ ko yeggale incha allah rabbi li ci des su ko defee bu yàlla dogalee ci diggante bi ñu am fi forsa rek ñu mottali ko incha allah rabbi Euh, ndax damay wax ni moom xuma kañ la ñuy ngeen may may weer woo xam ne moom li ñu tuddee conseil lay doon xuma lu ni ngeen koy tuddee te mooy noppalu woo xam ne du ma def dara dara dara lu tudd noppalu rek wéet ak saa bopp loolu xam naa war ngeen maa wutal weer wi ndax xam naa loo xam ne léegi tey mu jege fukki at yoo xam ni doo lu ci émission rajo bi doo noppalu ci daara ji majalis bi doo noppalu ci lek léeg conférence yi lay fëgg di fëkk la ca woo waaye loolu lépp rek yàlla na ko yàlla nangu te bool nu yiwa yow mal ñun xeetu yonent bi yépp alayhi salaatu wasalaam sun borom mën na ko yàlla na def allah yàlla na ko nangu ah la cay njuumte mu jéggal na ko xam naa bari nay njuumte waaye ñu jéggal ma ko rek incha allah te sun borom jéggal ma ko la cay njuumte jëm ci wàllu julit ñi julit ñi jéggal ma rek allah rabbi kon su ko defee xam naa bu fekkee am ñu bëgg a participer rek sëñ Muudu ñu jaar foofu bu baax ku ci mel ni euh, sëñ Mouhamadou Moustapha Dieng defe naa mi ngi Italie moom it ndeysaan ak li yi di xat-xat terewul woo nañu rek euh, bëgg indi addiyaam barkeloo ko ci liggéey bi ndokkeel nañ ko ci loolu suñu jigéen ba suñu jigéenu bopp la moom soxna Mbourika xam ngeen ko euh, xaw naa ko gëj ndax ñàkkoon ay coordonnées waaye sama jigéen la ku baax la ñëw na bi fii ci daara ji euh, ndeysaan mas na ma dem Louga yendu ji fa moom mu mu mu mu def teraanga ju nekk jëme ci ñun ñu koy ndokkeel ci loolu nekk fële ca Espagne moom tamit moom ak borom këram nuyu nañ leen ak njabootam bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di ko ñaanal yàlla suñu borom barkeelal ko njabootam ndax moom lañ ko santoon ma nga ca mooy jigéen day yëpp ni daa war a sëy ci bu tolloo ci sëy mu sëy ngir yàlla jigéen daa war a yëg ci boppam ni yàllaa ko bind ngir mu produire doom aadama mu war a sëy ci bu tolloo ci sëy mu sëy ngir yàlla su ko defee aji yor ja ko yorit mu xam ni kii daa ñëw ngir sëy ngir yàlla mu jàppale ko ci euh, kattanam lépp la man ndax bu xëppee bëtam dana xool ne gis ni téeméeri junni moroomam ñi ngi fi te nanguñoo toog sëy nanguñoo toog sëy su ko defee kooku boo ko jàppalee ñaari tuyaaba ngay am tuyaabay ku nangoo toog euh, jàppale ku nangoo toog sëy ak tuyaabay euh, nangu dogalub yàlla rabbi si jàlla kon suñu jigéen boobu muy soxna mburi ka ñu ngi koy nuyu lu bari noonu la ñuy nuyoo tamit ku ci mel ni euh, euh, soxna soxna euh, maam Bousso Niass moom tamit kasaalika nu foofu ak borom këram ak ku ci mel ni soxna maam Bousso Guèye moom tamit ñoom ñëpp nuyu nañ leen soxna Daba Jum ñoom ñëpp ndeysaan ci loolu rek lañ nekk di góorlu nekk ci seenu sëy ànd ak di góorgóorlu seen kéemtulaay kattan kon ñu ngi leen di ndokkeel ci loolu di leen ñaanal. di nuyu tamit ku ci melni Serigne Makhtar Sall nek fofu ci Angleterre ki dem rek mi ngi yóbbante ci man benn jarbaatam yëpp nañ ko ak ku ci melni Serigne Cheikh Fall mom tamit fofu la ci Angleterre mi nañ ko suñu xarit ba serigne mam Thierno mam Thierno ndjay nek fofu ci Espagne daan fi indi donga yi kafe gi moom tamit gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu te diko ndokkel diko ñaanal fi ñuy daal mbolam ñu ne ci diaspora bi suñu xarit ba mam maam kan Eh, kii maam kii eh, ko Kosa ñu ko Fall ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel eh, moom tamit kenn la ci suñu suñu xarit suñu wëllëre nag yoo xam ne ñu jàpp daara ji la ndokkeel nañ li ci loolu di ndokkeel mboolem ñu ci gis opera bi ñëpp rek bàyyiwuma kenn yàlla xam na ko ñu ngi leen di ndokkeel yéen ñëpp rek incha allah te di leen ñaanal xam naa bu fekkee sëñ Moodu amul ko bëgg a participer bu fekkee amul ko bëgg a participer rek nga wax ma ma daal di tàggatoo ñu ñaanalante Euh, di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di xam le ni ah jamono ju nekk la ñaan war waaye rawatina nag jamono ji ñu toll di jamonoy xat-xat ñu ñaan suñu borom rabbi wa jàll mu yëkkati fi tawat ji te bu tawat ji weesoo lépp mu def ko mu diw yiw fi dunya wal axira lépp def ko muy teraanga lépp def ko muy barke di ñaan yàlla gannaaw tawat ji Afrique jëkkati ko ci faw faaw faaw rawatina sunu Sénégal njaay gi incha allah sunu borom mën na ko ko defee kon loolu ñu koy ñaan te di ko ñaanal weeru ko a ngi dëgmal ñëpp nañ leen ko bàyyi xel tawat ji bu mu tee jox ko xàq dañ ko daan jox balaa bi bu mu tee ñu teg ko fañ ko daan teg jàppe ko nañ ko daan jàppe incha allah yomb na suñu borom yàlla nañ suñu borom defal al yusru rek incha allah kon nag ñuy wax suñu borom ni ko rabbana afriq alayna sabran wa sabit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا لا تعمل علينا إسرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تسق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وما سألك على الله بأس يا ربي إنك على كل شيء قدير يا بر يا لطيف يا محافي يا من له أمر ورا يا شافي أنشل شفاعك مكان الداعي ولا بلا التلاي يا بر يا لطيف يا محافي يا من له أمر الورى يا شافي أنشل شفاء مكان الداعي ولا بلا بالابتلاء وأنسل نفع ما كان الضر وأنسل خير ما كان الشر وأنسل نفع ما كان الضر وأنسل خير ما كان الشر يا رب يا أرحم الراحمين يا أي يا خيوم يا ذا الجلال والإكرام فإنهم وإن أسوك يا أحد لخفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لدؤف يسهو وإنهم أبدانهم لا تقدر الله بلائك للضعف يسحر يا أرحم رائمين يا ربي يا أرحم رائمين يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وما سالك على الله بأسس إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ربي يا ربي ارحم أمة محمد يا رب يا أرحم الراحمين ارحم أمة محمد يا رب يا أرحم الراحمين ارحم أمة محمد اللهم ربنا تقبل منا وصلى الله على محمد